Tahirou uh, Sarr lay wuyoo yëkkati na ay kàddu démb dafa woote woon am ndaje Tahirou moom yi nag gëm-gëm ba mu amoon ci wàllum étranger lenn ci étranger yi ne ci biir réew mi ba léegi loolu la am démb nag ba mu wootee la mu yëkkati ci kàddu ñu déglu ci lëf te dellu waat pour tout étranger désirant ouvrir une boutique d'alimentation générale et interdiction de dormir dans les boutiques perte de la caution et fermeture de la boutique en cas d'infraction non application bépp doomu doxandéem bi bëgg ñëw ubbi fi boutique ak ñi fi jot a ubbi surtout guinéens yi dañuy dugal caution wu 7 million balaa ñuy am droit ubbi boutique. dina permettre benn su état décidé ne prix day wàññeeku ñoom dootuñu nekkati maanaam dans la rétraction de produit maanaam mooy dañuy fexe téye produit bi ba nga xam duñ ko jaay benn. ñaar su état décidé ne maanaam produit de première nécessité yi dañ koy wàññi dañ koy dañuy nekk dans l' obligation wàññi ko sinon. ñu tëj sa boutique téye sa caution 7 millions yi nga xam ne da nga ko déposé direction du commerce intérieur parce que dëkk day doxe yoon man toog naa sama bureau recevoir ay kilifa guinéen ñëw sa bureau bëggoon waxtaan ak man bëggoon xool sama état d'esprit ci mbiru Guinée ay pa ñeent lañ ay kilifa lañ ñoo sax mag samay pap ñu waxtaan ci njëkk ak ci teraanga ba ñuy xuuse dama leen ne njëriñ bi leen Sénégal amal te ngeen nangoo te ngeen xam ko lan moo tax yéen mënu leen toujours di yombal état bi nu ñuy wàññee dund bi kenn si ñoom dëggal li may wax man leen pour delloo njukkal Sénégal da ngeen war a fexe maanaam noo leen jëlee yéen seen propre décision pour une politique sociale ah ngeen teg ko maanaam ci intégration africaine bi ngeen ne moom ngeen gëm moo tax ngeen bëgg déplacé fu leen neex ngeen ne dañuy wàññi dund bi pour six mois wala pour un an dimbale ko état Sénégal mais non xalaat duñ ko lan lañ jàppee Sénégal lekk kaayu xaalis. amuñu lu ñuy ragal ci suñu bëgg Sénégal amul ñu lu ñuy ragal pour xeex suñu dund ñun sénégalais yu yomb ci biir Sénégal. mi ngi noonu interview bu wala bokk euh, conférence de presse la woote woon gërëm Serigne fàll Gumbala ak Soxna ndeyaa ñoo fa teewoon démb mi ngi ci chaîne bi wax na ci lu bëree bëri Assane ba léegi position ba mu nekkoon moom jógewu ca itamit euh, nee na liggéey ci Sénégal di am xaalis di yóbbu sa dëkk. te bu ngoon jotee nga lal fenn tëdd jaaduwul jóge bitim réew di ñëw di yor carte di jaay sa bopp yooyu bokk na ci ñaareel bi itamit mooy di fanaan ci néeg di fa togg di fa fanaan di fa def lépp te itamit fayoo taxi yi war soo liggéey dem sa dëkk daal yooyu yëpp tayur nee na euh, bokk na ci li nga xam ne su amee baat ci dëkk bi dafiy jóge waaw sant yàlla rek ñu ngi koy remercier bu baax wax dëgg yàlla ndax lii lu am solo la ñu wàcc ci langue politique gi pour dem ci élection yi waaye man mii di wax yow sama sama nijaay Cheikh Kane. sa nijaay ma nga gine fa lay liggéeyee Cheikh Kane waaw ma nijaay la. sama baay bu ñu wax Mouhamadou Lamine Cissé Guinée Bissau wala Conakry Ibrahima jóob xam nga ko. Ibrahima Diop waaw. nga Guinée ñoom ñëpp ay Sénégal lañ mais Guinée la dem di liggéey luñ fa fort indi duggal Sénégal. Mm-hmm. ñëpp Guinée foofu la dem di liggéey di indi. Mm-hmm. am na ñoo xam ne Gambie la ñuy dem di liggéey di indi. sëñ Maam Gor Falit sama sama sëriñu daara ma nga Guinée. ma nga Guinée. waaw doomu sëñ Maguette Fall la. gis nga gis nga affaire tukki yi moom cinquante cinquante la affaire tukki yi cinquante cinquante la dafa am ñoo xamante ni dañoo jógee Sénégal maanaam mënuñu fee amee dara mais dañuy dem fee amee fa dara indi Sénégal am ñoo xamante ni foofu mënuñu fa am dara Sénégal lañ ñëw pour mën fi amee dara pour yóbbu foofa. léegi kay li ñu war a wax mooy. nañu teg bépp liggéeykat ci ay conditions yu baax. Mhm. amul Sénégalais nga amul nangam ñu teg leen si ay conditions yu baax. Mhm. bu ñu tegee si ay conditions yu baax ñëpp liggéeykat ba pare yet Sénégalais gi ku fi duggit nga mën a am ay kayit yu leer comme Sénégal kayit ndax it ñoom Ibrahima Diop ñi bu ñu dem seen carte d'identité CBAO lañ yor. Mhm. foofa lañu fay duggee. ñoom waaw. ok kon it ñi nga xam ne ñoo jógee foofa ñoom bu ñu amee carte d'identité CBAO mën nañoo dugg Sénégal. kon problème mu wërta mën a am. moom ci condition yi lay waxee rek. maanaam maanaam comme kenn ku ci nekk xëy na ci doomi réewam. Mhm. exemple ki nekk bitim réew. Mhm. Euh, tubaab bi fexe nañ ba seen réew moom boo ñëwee. di nga contribuer ci développement réew ma. Mhm. maanaam daal di nga liggéey yóbbu sa dëkk waaye di nga fa bàyyi dara. ñun ñu ngi koy def di est-ce que kii loolu lay wax. ñun ñu ngi contribuer ci développement bu Sénégal de. ndax tey jii yow bitig yi. Hmm. bitig yi ngay gis ñoom ñoo fa nekk. waaw ñoom ñooy jaay ñooy leble. ñooy def lépp ñoo lay yoral sa dépasse. mën nañoo lépp la dem di la ko organiser sa dépasse. Mm-hmm. bu ñeeñ jox leen dépasse ñu daal dem Sénégal yi duñ nekk foofu si bitig bi tey jii boo ñëwee di sa soble Sénégal yi sax ñu ngi si déema ñu ngi si dugg léegi. Mm-hmm. mais bu njëkk Sénégal yi dugg ñu si. fejarte soble mooy lan dañuy dem si buntu place bi boo jëndee sa libre soble indi ñu fejarteel la ko nga jox leen ñu nga yóbbu yaasa mm-hmm. wala leneen ak leneen loolu lépp loo bëgg mën nañ la ko defal non non yaasa léegi amatul problème naa jeetul ah dañ ñëw fey tak tak tak tak jox na nga dem boo dee wàcc ay saaku ñu ñëw jël saaku yi wàcceel la nga jox leen li am ñuy dem silence nga jox leen li ñu am léegi ñooña nag dañuy daan seen doole mhm. léegi li ñu war a def mooy ñu fexe gouvernement bi fexe ba luyaas bi yomb ah ba ku ne mën caa waaw ba kiy fejarte soble dana mën a am lu mu dajale pour fay luyaas effectivement ki nga xamante day jaay euh, mboroxe wala futti futti mooy futti hmm. futti boo ko ñamoon doo ko bàyyi am na koy jaay si station Grand Yoff bii futti waaw ah futti lu neex la futti waaw comme saaru comme saaru loolu ñuy kii comme saaru hélas xam na ko xam naa ko wax dëgg fa yàlla tey ko mos xaw ma ko wax dëgg fa hélas ku futti xaw ma ko de xam nga Fouti Assane nag yow nag vraiment bul ma xam loo Fouti noo <laughs> ah. xam na ko léegi xam na ko non xam na ko léegi xam na ko léegi comme may tooñ mais xam na ko waaye d'accord xam na ko dañ def ah, xaw ko waaye léegi nekk xam na ñu dem xam nga Fouti mi xaw ma ko. ah am na ko ma wax sama nopp moom ci ay mbiru na ku ma wax sama nopp bi nee na ma. non xam na ko. lu mu seer seer seer matul téeméer. kii kii xam na futi xam na futi waaw xaw ma ko wallaahi xaw ma ko. Ah, xam nga doo jàll. Assane continué jàllal. yaa ngi maa ngi daanaka àgg na bul bul taxaw bëgg faa <laughs> waaw bëgg koo lay doon naan laa àtte xuloo. waaw bul ma dugal mukk fi nga nekk baax na de. Ah, maanaam yaa ngi woon ci nit ki baax euh, <laughs> yaa ngi nekk ci nit ku nekk nañ fexe ba tëggee réew mi koo xam ne ku ne la ngay góorgóorlu mhm. nga man caa fay ab néeg boo fanaan mhm. waaw loolu kay waaw loolu gouvernement bi bu si taxawee mbuurkaat gee mu gaaw defar ko mbuurkaat waaw pour def ko ay ay ay kër ñu fay location wala ñu fexe ñu fexe Sénégal yi sama classe gi kenn ku nekk mën a dem am fa kër bu ko defee kër yi libre ñoom ñoom ñu ñu fi liggéey si mën a ñëw luye ay kër mhm. di fay weer wu dee lu yomb man ko booleeg seen liggéey. d'accord mais xalaat leen koli daal du xalaat ndax ni ni boo kolee réew yóbbu ñoom it ñu koli say doom andi. li dëkk bi a xat rek. politique gu bi euh, bi mu xam naa sax ko am incha allah balaa yàgg ndax fan yii waroon na nekk suñu ah. invité dafa xawoon mhm. bi mu duggee ni mu duggee nii pour porte bi baax na. Hmm. non man de leen léegi laa laa laa laa ànd. Hmm. mooy na wax ne Sénégal maam réew mi. ne Sénégal yi nañ leen fexee wutal seen i kayit te ñi fi ñëwit nañ ami kayit léegi nañ ami Sénégal am maam amal kayit ñu xool buñ xoolee sa carte d'identité yoo xam ne dëkkoo fi fee nga dëkk nañ fexe ñu ami kayit léegi d'accord ku ami kayit war ngaa mën a ñëw liggéey si dem sa yoon ndax ñëpp benn lañ ndax boo dee xool ñu si bëri ñoom lañ takkan ah. mm-hmm. dégg naa sax ñu ne ñoom nangu ñoo maye si Sénégal yi seen seen kii man nag ñaari wax yooyu xuma sax bu ma si war a ñii ni ñoom ñoom ñooñu noonu seen doom yi nanguñ ko may Sénégal ñii ni Sénégal yaa ngi si takk <coughs> après El Hadj si àggaar dana ko dana ko leeralaale. léegi yaa ko. <laughs> non man da ko di <laughs> ah, yaa wax say wax. yow yaa ko yow leeraloo ko nga bëgg man ma leeral. non loolu du ko leeral de. waaw que say wax. ah ko leeral de. say wax la duma ko leeral. <laughs> am na solo alaaji xam naa dinañ ci ñëw it ni nga gisee xam naa kiiw téyër après kéem. Mm-hmm. léegi nag wax na ay mbir yu bari nag yoo xam ne bari na sénégalais yoo xam ne nee nañu lu tax ñu ànd ci mooy dañoo bëgg dëkk yu tegu ci ay règlement mm-hmm. waaw ndax Abdou Guité Seck moo weer yaakaar naa lu tax bu ñuy ñëw bu ñu dem seen réew di bëgg dee mm-hmm. te bu ñu ñëw suñu réew mu yomb moom nag defe naa ni mu ko waxee réew yëpp la ko bëgg a jagleel ba Sénégal ku fi duggati am carte séjour boo ñëwee dund bi nga fi bàyyi dara comme ni nga yóbboo dara waaw Tahirou euh, wax de Euh, am na yu bari yoo xamante ne bii moom bokkuma ci moom gis-gis. Mhm. am na yoo xamante ne bii mënees na cee bokk moom gis-gis. Mm. lu ci jëm ci nit ki bu ñëwee ñu xam mooy kan nit ki bu duggee ci dëkk bi. loolu autorité yi war nañ ca taxaw. Mhm. bu ko defee tamit li la warloog dëkk bi nga def ko parce que dëkk bu ne noonu lañuy nekkee cib dëkk. Mhm. ay ab dëkk boo fa duggee sénégalais yi nga xam ni génn nañ dem ci nekk ci réew Europe yeeg yëpp xam nañ ni a ngi ci dëkk bi ab Sénégal mën nañoo wax ne nangami sénégalais ñi ngi ci biir dëkk bi même ñi nga xamante ne bi jaar nañ ay Nicaragua sax dem ña leen di recenser di jéem a xam exactement naka la ñuy def parce que bu ñu dut loolu rek pour ñu mën a def activité ci dëkk ba sax day xaw a mm-hmm. jafe. Mm-hmm. parce que peut-être sax mën nañ ko bañ a mën a mën na bañ a yomb. Mm-hmm. yooyu état daf cee war a taxaw mais dafa am loo xamante ni man dama jàpp ni hmm. ñun ñii ñëpp ay africain lañ tubaab bi moo xaaj hmm. yëf yi rek hmm. ñu naan fii Guinée Guinée Bissau Gambie Mali Mauritanie et cetera dugg na fi génn fi yooyu yëpp ñu koy wax tey jii amoon na ay jamono sénégalais yu bari dañoo toogoon jàpp ni seen ñàkk liggéey gi naar yee leen ko teg. Mhm. événement naar yi bi mu fi amee. Hmm. jëloon nañ bitig yu bari jox ko naa jox ay sénégalais jël ko bitig yëpp a daanu. yaa ah, dëgg la mhm. ñoom ñëpp a daanu kenn hmm. kenn réussiru ci. Mhm. parce que mënuñu ko. mënuñu liggéey. du question mënuñu liggéey. mais maîtriser wuñu boutique dëkk bi fii di jaay say mbokk yi ñëw lepp la ko fi ba mu hmm. jeex. boo deful ndànk way laa maanaam dafa am yoo xamante ni doo ko mën dafa am ay liggéey yoo xamante ni bii tey suñu mbokk pulafuute yi ñoo koy liggéey ci réew mi man chaque jour ma wax ko mhm. tricycle yi tayru di wax naan ñoom dootuñu am droit pour dawal tricycle dafa waroon laaj ndax booy yi bëgg nañ koo dawal booy yi bi ñu leen waxee tricycle yi dañuy moto pëlafuuta mhm, waaw mhm. comprendre nangu ko sax dawal yaa ngi ne bëggoon ci wut benn pour gars yi di ci wàcc. waaw ñu bañ euh, ne leen bu ngeen dem reportage il faut di yegg ci moto kii ñoo ñu ñu bañ loolu ma maa ciy seede ne ne duñ ko daal. loolu ma maa ciy seede waaw ñëpp. ñu bañ ne reportage bu wàcc jotee sax mën ngeen cee jaar waaw bu wàcc sax mën ngeen cee jaar wàccaale ñibbi ñu ci moto. <laughs> loolu maa la ciy seede. kenn du ci yegg ci moto trisé. <laughs> xam nga immigré nit ñi bu ñu demee ci seen dëkk bu ñu nekkul ci seen dëkk tey jii boo demee ci am na dëkk yoo xamante ne bi da ngay gis sénégalais yi dëkk yenn façon dëkkin yi la dëkkee noo xam ne bu dee si seen réew la ko dëkkee tamit noonu la rek bu ni ñuy dëkkee fii bu dee seen dëkk la duñ ko dëkkee parce que ñoom dañu jàpp ni dañu ñëw pour wut am na sénégalais yoo xam ne tamit dañu jàpp ni dañu pour wut bu ñu demee ci dëkk dinañ lijjanti kulo ba daal dee dëkk am na noo xamante ni bi dañ koy dëkkee du dëkk dafa am discours yoo xam ni pourtant ñun dañ koy bañ pareen saay tubaab bi di ko def mais pareen saay lu tax ñu koy nangul suñuy ñooñ ñu di ko bu ko waxoon ba gars yi di ko yekk parce que Éric Zemmour mhm. ca France mhm. façon discours bii la yor ah oui et pourtant ñun ñëpp dañ koo contre dañ ko contre pour rapatrier yi ñoom euh, Marine Le Pen discours bi lañ mhm. yore ci France pour français yi la et pourtant ñun dañ koy ñaawlu c'est parce que suñuy mbokk ña nga fa du dëkk si léegi ñun bu ñu gisee fii nag nit amee même discours boobu parfois dañuy mel ni loolu. Hmm, dafa lu normal lu normal waa si. te nanguwuñu ko fële mais nangu nañ ko fii. Hmm. biñ naan tromp bu fale day yóbbu euh, mooy élection yi repasse naan day génne africain yëpp. Hmm. dañoo contre ndax loolu. waa parce que dañ ne baaxut. léegi dis façon discours boobu lu tax ñun ñu mën koo nangu fii te ñu ko. léegi loo jàpp ne moo tax Tahirou kon amee discours. non Tahirou man dama man bu ma sañoon day changer day changer discours. c'est que mën naa am na ay idées yu baax mais bu ma sañoon nii muy politiquer parce que moom xam nga lu ñu koy xoole candidat bi contre politique. moom loolu la ko nit ñi di xoolee quoi si si après damay ennemi moom fi mu dugal boppam baaxul quoi. damay ennemi. yaa ngi dégg. Mhm. parce que dafa dugal ci boppam ne nit ñi dañ ko jàppee ku ku ku bañ étranger xam nga tey ñii fi nekk di gouverner. pourtant mën nañoo teg règlement yi nga xam ne bii tayru yi muy wax nii yëpp day nekk ci biir. dañuy def règlement yu jaar yoon yoo xamante ni bii dinañ fexe saytu yëf yi ba mu leer ñuy fay taxe di def li ñuy def yëpp comprendre nga. Mm-hmm. te kenn du leen xoolee ne bañ nañ étranger yi. dëgg la mais boo jëlee loolu jël ko def ko sa kii sa mbir ne du amatuñu sañ-sañu jaay fii ci béréb. Mm-hmm. nee na du kenn dootu fi jaay xaw ma ci buntu hôpital. am na ñu waxee ne dootuñu fi ëmb waaw xam nga yooyu yëpp am na yoo xamante ne bi tamit nan ngay mën a contrôler yenn yi fii sunu suñu kër yi nga xamante ne bi eh, juróomi nit ak kuy nit dañuy bokk nekk waaw juróomi nit fii da ngay ma la dara mais da ngay jóge dëkk ba fii rek alaaji bañul dëkk foo xamante ni fii tamit da ngay bokk ak ay nit ñu bari nekk parce que alaaji bañul mais bañul bokk nekk de comme exemple studio yi ñun ñett ñun dëkk fi waaw fi la ñuy toggee suñuy soxna fi lañ ah, nekk xaj na fi ci biir studio bi. waaw mën nañu koo def. organisation la walaay. c'est am na ñoo xam ne foofu la leer ay gaz bi ñu teg. ñu ay mu xam sax yëpp gis nga sooy bu sooy bu loolu. sooy bu loolu loolu loolu mu wax la leen. li kii di wax nii. Ah, wallaay sooy bu am na kër am na kër yoo xamante ne bi fii. Ah. yaa ngi dégg li tey di wax du duñu ay étranger duñu dara ay sénégalais lañ te même condition boobu. noonu la ñuy dundee comprendre nga te ñooñu duñu loolu alaaji loolu kat nag bailleur yi tabax la dangay gis koo xam ne ni tabax ni mu tabaxee kër gi mu luye waa ji amu fi wa bu luyee keneen suu luyee kam suu luyee ah. ci biir néegam lay togg waaw ah, kay ah, loolu moom na fi xam nga am na la waañu duñ ko bokk la parce loolu lépp moo ko waral jël waaye doo bokk ci ngay toggee sa biir néeg lu ko waral lu ko waral mooy mooy ñàkk mais loolu nag bailleur yi la alaaji ñi tabax la mais xam nga loolu mënoo ko jël mënoo jël loolu yëpp nga adressé c'est que man waaw wax dëgg fa yàlla nit la koo xam ni tey am na ay idée mais fi mu fi mu bëgg a dugg noonu foofu baaxul. ci moom pour man ci carrière politique am quoi. comprendre nga. d' mën na am carrière politique boo xamante ni. bu baax la te du dugg fii mu dugg nii. mais fii mu dugg nii man gisuma ni wax dëgg fa yàlla lu baax ci moom la. d' accord waaw.